هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدت من السخي أنوارا لكشف الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man tabiahum bi ixsaani ila yawmi ddin bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan ngeen nangul ma sama ziyaara ñu nit nangul nañ leen yàlla nañu yàlla boole nangul maa ngi nuyu sama sëriñ sama bokk di sama xarit di sama rak waaye di sama sëriñ ndax si di xaj Malick di Ahmed Sarr mi toog nuy jabel nuy président Moustapha ak sëriñ Abdoul Aziz xaj Daawda Jóob ñoom Pape Khalifa Pape maa ngi ñoom ñoo maa ngi jéggalu itam ci yéex a agsi bi parce que dafa amoon beneen programme bu mel nii ñu bàyyi woon fi Ahmed ñun ñu demal leen ca fas Mbao doon fa teewee lu mel nii kàddu amatu fi xanaa gërëm leen rek sant leen waaye fii liñ fi wax kenn dootul wax lu ni toll te liqaaul ixwaan liqaax arab yi dañuy wax ni ndabal teraanga di ko jañante ba mu toj moo gën di ko xëccoo ba mu toj li ñu waroon wax yépp fekk na Ahmed di ko wax te Jabel mi ko jiitu wax na ko kon sama bàyyi nee na bu ñu balee ba mu set nga topp cay sotti mbalit bu tilimee yaa ko tilimal kon dañuy ñaan yàlla ci barki bis bii ak waxtu bii ak ër bii ngeen wacc seen lépp ngir yàlla ki tax ñuy préparé ci barkeem ak barke baayam ak barke maamam yàlla na ko yàlla wuutu ci yéen fayal leen boppam ba kenn ku ci nekk seconde wala minute wala waxtu boo def ci ngelaw lii ak coono bii ak fu dëgër fii ak li ngeen fi doon jàng yàlla ci yàlla dëgg jaarale ci seen réussite totale muy barke di ilmu tuqaa wal yàlla na ko yàlla def kontaan nañu sunu xol sedd na parce nit soo bàyyi daf daan wax ni doom wolof yi dañu naan nit nit ay garabam mu ni ma wax bu yàqu la nit nitam mooy garabam bare na lu nit ñàkk nita la ko xañ bu doon sa doo ko ñàkk kon nit nitam mooy garabam kon yàlla yàlla fay leen yal na yàlla barkeel seen lépp sunu xol sedd na kontaan nañu liñ ci doon séenu yëpp am na parce que mënuñoo organiser le Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour dara te boolewuñ ci daara ju mag ji te moom mooy borom daara ji nan ngay organiser le borom daara ji te daara ji bokk ci loolu moom xel xalaatu ko loolu moo taxoon ñu ni bokk na ci pour dugal leen ci sëriñ bi nag ñëpp ay mbokkam lañu waaye université ca raw ñëpp ay mbokkam lañu mais daara ju mag ji moo ci raw parce que daara ju mag ji moo boole matière yëpp ci matière yi gën a kawe moom itam ci matière yi gën a kawe foofu la daan toog pendant trente cinq ans quarante di boole ndékki añ ak reer bu toogee 9h ci suba commencé ci téere yu ndaw yi diggante laxdar bu dee fiq diggante laxdar yu achma yu muqaddima risaala ah, jàpp lawal commencé dagg jël bu dee naxu grammaire ba mu daal di commencé ca eh, ajuruma mulxatul i'raab kitaabu tasrif kokki yu daar yi laamiyatu bu pare commencé ca taarix yi te mooy histoire commencé commencé commencé ba guddi bu jógee fi muy toog di jàngale leen rek moo ko yëkkati mooy mu jóg julli bu dugg see fekk ñu tegal ko ndékkeem añam ak reeram mu ndékki añ reer julli gee def la muy def pare commencé nag jël mag ñi nga xam ni dañu bëggoon am xam-xam te xaw a am kersa ci jàng ci biir nit ñi mu leen di rocc di leen jàng en secret en douce ci biir néegam nekk ak ñoom ba min wi mu soog a tëdd sëriñ bi wax na ma ni ma ci làmmiñu boppam moom tëdd na lu mat juróom fukki at yoo xam ni fàttalikuwul fu mu nelawee lu ëpp ñaari waxtu waaw àddunaam yépp xam-xam la woon baayam ci boppam moo ko tuddeel boppam boroom daara ji ci bis yu bare xam-xam moo ko neexoon moo tax daf daan wax ni man aw ma xarit sama xarit mooy ki bëgg jàng moom ku mas a bëgg xam-xam rek xaritam nga boo ñëwee ci wetam ni ko maa ngi jóge ca daara ja wala ca université ba wala ca école ba mun la looy jàng nga wax ko dina la jox mbubb jox la xaalis ni la maa la ko décoré man doom ku bëgg jàng rek laa bëgg te maamam Seydi Hadj Malick ci ñett rek la tënku woon jàjju ba jàng julli bay waaw loolu moom moo doon slogan wu Seydi Hadj Malick radiallahu taala jàng julli bay parce que nit ki su jàngul mook bahima ñoo yem ku ne xam na ni xam-xam ci la yàlla noté malaayika yi ba ñu sujjootal mam aadama xam-xam rek a tax bu fekkee jaamu yàlla kese la iblis mi ngi woon ci biir malaayika yi mais bokkul woon ci malaayika yi waaye ku xam iblis ni mu kàccoore mujj gi waaye laata mu koy loolu di natt boobu di ko dal iblis nekk na sayyidu ruhaaniya ñeent fukki junni at nekk na xaasinul jinaan fanweeri junni at trente mille ans nekk na seydul malaayika soixante mille ans juróom benn fukki junni at foo teg sa tànk iblis su jot na fa ci ay seconde mu ñàkk ko ni ana xayrun minhu xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tiin te yàlla xamaloon na iblis ni ko yéen a ngi dem mais dina am ku bañ mu dajale malaayika yëpp ni leen maa ngi leen di ñaan yàlla xamal na ma ni ma dina am ku bañ mais ngalawaay ku ci bañ na nga dellu siwaat tuub booba xamul ni boppam la ba affaire bi yet wi dalee ci koom dafa lànk te li taxoon yàlla di leen di leen wax sëgg leen ngeen sujootal aadama malaayika yi ku ne xam na ñoom dañoo ñoŋu laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun duñu ay genre robot lañu yoo xam ni dañuy exécuter rek kon su aadama ñëwee jommal leen ci ay seconde xam-xam rek ko def loolu moo tax maam Sidi xaaj maalik masul noppi di jël tànkam di ko teg ci wàllu xam-xam di dajale nit ñi parce que nit danga ko sa papa daan na wax ni fekk nit nga def ko dof ku nekk mën na ko mais fekk nit nga niteel ko ba boo ko bëggee def dof mu lànk foofu la fee nekk kon xam-xam boobu moom la Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour doon ci maamam boobu bi ci toog mooy jaamu yàlla ci na lañu doon def fii xoolal bés bu rafet bii léegi Ahmed Sarr junj na ko tabaarakallahu nga xool bésu àjjuma ni mu foore di sayidul ayam di sangu bés yi ak lañu ca wax yépp ak heure bi ngeen nekkoon di ci jëf léegi lay wax ni mas naa gis Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour mu génn benn mag daw dab ko ni ko ñaanal ma mu tàllal di ko mu ni ah yow ñaanal nga sa bopp mu ni ko ay bi def ci rek dimbale ma mu ni kon nag nañ jàng faatiha ak salaatu faatiha lu ko góor gi wax ni ko rek faatiha ak salaatu faatiha rek mu ni ko rek nga mbër waaw mooy lii Ahmed waxoon sànq ba ni ko salaatul faatiha fekk mu naan baaraam parce que Cheikh Sidi Mouhamed Mansour am na maamam boo xam ne ñu ngi ko daan wax góor gi Abdou Boli Fall yu bari Seydi Hadj yi moo ko terewoon mais moom bu masaana ñëw ci néegam ay caabeem réer dafay jàng peru salaatu fatiha tëfli ko ci baaraam bi ubbee ko buntam boo ko waxee mun la il fatih li ma uxliq <laughs> loo ci mën mënoo ci dara sama bàyyi may nettali nii góor gi Abdou Boli Fall dafa jàpp ay jaam mu jaay leen te booba dañuy tere ku jaay jaam ñu dem kalaame ko jàpp jaam ya ku la jaay nga ne Abdou Boli ñu convoqué ko mu dem ci Seydi xaaj Malick ni ko man kat dañ ma convoqué police ci jamonoy tubaab yi jaam yee maa leen jaay te bés bu ma demee ñu xàmmee ma daañu ma tëj ma bëggoon nga defal ma loo xam ne su ma demee kenn bañ maa tëj Seydi Hadj maa li ko jàngal peru salaat faatiha mu jàng peru salaat faatiha mu ne ko raayal sa kanam nga dem mu daal di dem ba mu àggee ni cëpp ñu xëcc jaam yi benn par benn ku la jaay nga ne am nga ne Abdou Booli mu ne Abdou Booli nga ni noonu moo ma jaay waaye du kii di ko def ba jaam yi jeex ñu leen xamuleen leen ku leen jaay dem leen seen yoon Abdou Booli wëlbati ko dem ci seen i xajmaa yi ni ko nijaay maa leen jaay ba yàlla xotti seen biir mu ne ko buñ la xàmmee woon ma delloo Cheikh salaatul fatiham kurusam kon li ngeen doon def lu am solo la moo tax ñoom li ñu doon seen itte yëpp mooy jàngal nit ñi ci ñu fexe di jaamu yàlla jaamu yàlla boo xam ni dafay sax ci seen xol du nekk jaamu yàlla yaram bi ci topp mooy jàngal leen nan la ñuy amee jom ci liggéey invité nit ñi ñu dellu ci liggéey kon loolu mooy message bi ñi ngi leen di xaar ci seen bés di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla indi leen ci jàmm delloo siwaat leen ci jàmm yàlla na ci yàlla jaarale seen lépp lépp loo xam ni tagoon na wala muy sa itte diisoon ci yow wala muy soxla ba xamoo foo jëm ak moom ci barke bés bi ñu jëm yàlla na ci yàlla jaarale seen lépp sant soxna yu tedd yi gërëm leen ñaanal leen yàlla yàlla na yàlla taxaw leen yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla yombal seen dëkkuwaay ci barab bi dafa leen réussir ci taxawaay yi dëppale ak seen kilifa yi ak ña di jàngal yàlla na ko yàlla def ñu ngi ziar bu baax. Mhm. bu yàlla dëgg la. ñu ngi ko Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane waaw jërëjëf ñoom asalaamaaleykum xam naa li ñu ci sànni du bari waaye sang bi xam ni sëñ Moustapha leeral na ko mooy sëñ Mansour temple du savoir ñépp xam nañu loolu man mii di waxante ak yow wedd gis bokk ci gis ngeen sama lii sëñ Habib sama sëriñ maa ngi lay gërëm ci occasion bi nga ma may ndax sëñ Habib maa ngi lay gërëm ci occasion bi nga may ndax lii fekki nga lépp accident bi mu amoon ñu def scanner ñoo ngi si temple du savoir kenn du wax kenn leen wax luy scanner mooy xam-xam bi mujj technique bi mujj docteur bi ni c'est fini kii dafay dee xalifa ñaŋ mi nga xam ni ñoo ko teg ñoom ñii ca Ndar actuellement am na 114 daara sëñ Habib mii barki dem barkaat dem rek keroog rek lu jóge Ndar inauguré ko jàkka ja mu ja fa tabax man may coordinateur bi mu ñëw fekk sëñ Mansour ni ko sëñ bi ah su sa doom Cheikh Ahmed de tubaab bi ne c'est terminé c'est terminé dafay dee mu ni ah mu ni waaw sëñ Mansour ni xar leen ñu def tuuti rek directeur hôpital dugg si ak Baba Gueye mi nga xam ni mooy mooy mooy taalibeem ca hôpital principal sëñ Mansour ni ko yéen di yàlla mën a indi waaye sëñ Cheikh euh, sama doom Cheikh waaye dénk naa leen ko waaye dénk naa leen ko sama soxna nee na mësul gis mësul gis major bu déggee nii ndigal dafa mel ne ma rek maa doon malaat tabaarakallahu ci guddi gi ma gën sama gis sama pap xaj Tijaan mu feeñu ma ni ma Cheikh Ahmed Tijaan e eh, ma ni ko papa ñëw nga mu ni ma waaw mu ni ma xamul ma ni ma ni ko déedéet mu ni ma dégg ni nga da nga feebar ba yaa ngi tey mu ne waaw mu ne ah, lu xew de waxtaan naag sa borom ci sa mbir mu ni ko ah ni ko mu ni ko nee na ñu ñaanal la nga am doom bu góor mu ni sam borom di yaay yàlla mu ni ko waaw mu ni ko may ko Cheikh mu ni ko gestul góor gi ne bi ma waxee gestu ndekete maa ngi ci néeg nee na ma xool muy muy muy góor xale buy góor mu ni ko borom bi fii la liir bu góor mu ni waaw ne na jiitalal cheikh ci xéewal bi nu ko nal defal moo tax sayyiduna mu sallallahu alayhi wasallam kenn moom ndax ñaari fan avant sama soxna wasin na am doom bu góor sama papa laata mu génn àdduna nee na ma cheikh ëllëg soo amee doom bu góor tudde ko sang bi ma téléphoné xaaj mi Niang sama mag fekk ñëw na ma wax ko ko euh, deux jours après le 23 si la accidenté mu ñëw napp sama soxna ni ko lu ñu koy tuddee mu ni ko Cheikh xanaa wax la ni la papaam nee woon na yonent bi yow sa yàkk tudd mu ni kaakañ ah mu tuddee ko Mouhamad Abdallah góor gi dellu si sama papa yàlla ni ko incha dina génn jàmm sama papa dina génn jàmm bi yàlla defee ma si gàttal ma génn ma dellu si si sëñ ni ko sëñ bi gannaaw yàlla de sama tan bi yow gannaaw nag yaay boroom daara yi moo tax ma def taalif rek ci yow mun mu waay waxal waay mu ne ko daara jooyul tumurankewul xam-xam réerul te sànkuwul yaa ko waral borom daara yi xaritu góor ñi jigéen ñi yaa doy mag ñi yaa neex ndaw ñi yaay kenn doy borom daara yi borom kër yu rafet yi borom sanc bi borom limousine bi yaa ñu sagal borom daara yi a Ababacar Si mooy Keleyaar nga doon ko doon ko borom daara yi ne yàlla buur guddal sa fan te may la borom daare mu ni nii rek poos bi génne xaalis ba sànni ma ko kooku du bees du lu bees inventé wunu Seydi Hadji Malick li mu wax ci kuy wane karaama ñëpp xam nañ ko moo tax sëñ bi ñu ñëpp nañ ko dolli defal ñaan c'est pas parce que doomam la rek waaye taxawaayam dëgg dëgg dëgg ci ci Tivaouane laa daan vacances man mi Cheikh Ahmed waaye fa tabaarakalla fekk nañ lépp ci góor góor góorgóorloom ak tamit taxaw si wetu waajuram ñoo ñoo ngi gërëm di ko sant ci turu nag ancien yi nekkoon yëpp parce que nekkoon naa président daayira bi ancien yi fi nekkoon yëpp woo na ma ne ku si ku si ku amuloon yi tey di nga ñëw sëñ bi ñoo ngi lay gërëm di sant di la poñe nag parce que ba may def BFM tamit damay ñëw rek suñu Ousmane Dia moo ma wax ko ko mu ni ma xaaral muy dem ci raw bi boo demee ci raw bi mu ne ma waaye indi sa loxo waaye mu indi baaraam mu waaye mu naa demal waaye am rek am rek incha allah ba tax na kon ñun ñii maa ngi leen di ñaan kenn ku nekk nañ ko defal dog moom mi su ngeen wéetee lépp loo xam ne way juram yaakaaroon na si moom dégg nga mu am ko ndax xam nañu ko xam na xam nañu ba mu nekkee xale ba tey lii rek la ma si nekk kon nag sëñ bi ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla bu baax a baax buñ la fàtte si ñaan asalaamaaleykum kisiwo na dam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amin ya rabbal هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدت من السقي أنوارا لكشف دجنة